Abdoulaye Wade te it mu bokk ci task force républicaine donc mun nañu wax li amoon démb ak itam li nga xam ne moom la ñu nekk di def tey ndax président justement annoncé na conseil euh, national pour l'emploi l'insertion et l'emploi hmm. des jeunes euh, ci at mi ngir euh, kon mën a xeex ba tey ñàkkum xëy mi Abdou Khafor Touré ñu ngi lay gërëm ci disponibilité bi dalal ak jàmm ci démb ak tey mais jërëjëf euh, Adja Fatou maa ngi am mbégte nekk tey sa sa gan nga dalal ma ci émission bi démb ak tey euh, di nuyu euh, auditeur ak auditrice yu réew mi FM yëpp nga xam ne nii tey ci dimanche bi ñu ngi jóg euh, di ñu déglu ñu waxtaanee euh, mbir mu am solo mbir mu am solo jëm ci li nga xam ne nii mooy xëy emploi ak euh, chômage ak lépp lu lu jëm ci loolu ma am mbégte lool teew fii tey nekk sa invité. jërëjëf alors euh, ni ma ko waxee mbirum chômage lu yàgg la ci Sénégal waaye jàngoro la joo xam ne delluwul ginnaaw dafay gën di law li koy firndeel mooy 2018 euh, ñi ngi amoon 14 virgule 3 pour cent ci taux de chômage 2019 euh, mu yegg ba 16 virgule 3 tey ñu ngi wax 17 pour cent ci chiffre yi nga xam ne moom la ñu mujjee am te bu fekkente ni changé wul yokku na kon ba jéggi dayoo tey itam kanam la jëm ndax ñu ngi ci jafe-jafe yu metti mbas mi ak yooyu yëpp wàllu xëy Abdou Khafor Touré ci jamono yi Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade naka ngeen ko dundee woon ak yan jéego ngeen ci doxoon ngir euh, xeex ko. waaw xam nga da nga wax sa question dafa ëmb lu bari. Euh, ñëw nga ma indi d'abord balaa may tontu si question bi euh, da ko tàmbalee ci statistique ou chômage effectivement bu ñuy waxee ñu wax débat technique Euh, définition chômage mooy ñoo xam ne nii am nañ qualification di wut liggéey wala ñoo xam ne nii amoon nañ liggéey ñàkk liggéey euh, tout de chômage Sénégal boo ko xayma depuis si vingt dernières années yi mu ngi su c'est à peu près stable entre douze pour cent jëm ba jóge woon na dix huit mais aujourd'hui mu ngi entre douze treize quatorze ba seize pour cent ci lay valse mais kooku c'est un débat euh, scientifique nit ñi d'accord ñu xam nga boo nee Sénégal 16 pour cent de taux de chômage sax nit ñi ne la non mais lan ngeen di wax mais il faut ñu xam lan la ñuy wax ci biir emploi. Euh, caractéristique lan mooy caractéristique suñu marché de travail parce bu ñuy définir 14 pour cent taux de chômage ci Sénégal euh, c'est pas par rapport à la population totale. Mm-hmm. c'est par rapport ak ñi nga xam ne nii ñoom ñooy actif ñoo am emploi salarié am contrat de travail am déclaré leen inspection du travail euh, ak ñu am cotisation sociale presque ak caisse de sécurité euh, sociale mu ñu ne xam ñu nekk ci fonction publique bi nekk ay fonctionnaires ak autres mooy emploi salarié donc foofu lañ koy calculer mais caractéristique bi nga xam ne nii moom moo. moom moo jàpp suñu suñu réew te loolu dinaa ci ñëwaat ci kanam mooy ñu ci bari 68 pour cent des actifs presque 70 pour cent ñu ngi dans le secteur informel c'est-à-dire l'emploi n'est pas euh, c'est un emploi informel peut-être amuñu sécurité sociale amuñu mais les gens sont en activité donc ñun suñu marché du travail bu ñuy calculer taux de chômage il faut que ñu def différence ak ni ñu koy calculer France wala réew yu mag yi nga xam ne nii dañ koy calculer par rapport à tous les gens qui sont en âge d'activité qui sont en âge de travailler nga xam ne nii dañuy génne ñi nekk en en fait en dehors carrément des circuits productifs di am ay revenus filets sociaux yi revenu minimum d'insertion ak yooyu Sénégal bu ñu wax taux de chômage ñu ngi koy jagle ak ñi nga xam ne nii ñoom ñoo am emploi salarié wala yenn qualification yi parce que ñun majorité ñiy liggéey ah, wax naa ko léegi pratiquement plus de soixante pour cent ñu ngi nekk dans le secteur informel ñooñu ils ont un emploi ils ont une activité est-ce que activité bi mun nañ ko tuddee emploi parce que emploi dañ fa am nuñ ko qualifié ci tubaab waaw ñi nga xam ne nii qualifié donc loolu loolu loolu loolu moo tax maintenant ñun suñu défi du ci taux de chomage bi suñu défi mooy naka la ñuy def ba majorité bi nekk en taux en taux d'activité ñu ngi tuddee un peu sous-emploi muy ay un emploi précaire ñu fexe ba emploi yooyu ñu transformer ko en emploi d'essence donc ñun objectif bi ñu am wala objectif politique objectif en termes de résultat yi ñu war a am mooy ñu rendre élastique li nga xam ne nii moom mooy euh, la capacité euh, de création d'emplois formels et d'emplois décents et salariés parce que loolu la parce que emploi yi bari na boo xoolee on est suñu réew on est à soixante dix quatre vingt pour cent de taux d'activité ça veut dire nit ñi ñu ngi yëngatu soo jëlee ñi nekk même ci nekk kaw gi ils ont euh, le niveau d'activité quatre vingt dix pour cent parce que par boo doon jël statistiques yi quatre vingt dix pour cent ci àll bi dañ naan la dañu am taux d'activité te ñooñu amuñu xëy. Mm-hmm. mais parce que ils sont occupés par l'emploi rural qui est un emploi saisonnier mais moom mu la ñuy tirer seen revenu donc loolu mooy caractéristique gu marché du travail ci statistiques yi moo tax ñun bu ñu débat trop ci taux de chômage bi toll na nii wàcc na nii gàtt na def na nii donc ñu comprendre ko noonu beneen bi mooy sa émission bi dafa am solo euh, ni nga ko defee démb ak tey euh, ak question bi nga ma posé mu am mbégte lool pour te pour tontu ci parce que xam nga ñun am nañ chance peut-être fekkee fukki at ak juróom yi fukki at ak juróom-ñaar yi lépp li nga xam ne nii moom Sénégal ñu ngi koy tabax euh, ci politique publique d'emploi ci politique publique d'emploi des jeunes ci politique publique de jeunesse may fàttali ni rek ni Sénégal 2000 Euh, parce que bu ñu xoolee politique emploi c'est vrai am na ay lu fi nekkoon loo xam ne nii socialistes yi jéem nañ ko def euh, ba 2000 mais euh, Sénégal à partir de 2000 la ñu la ñu dans les politiques publiques de jeunesse de façon institutionnelle institutionnelle ñu c'est-à-dire ñu créer ay ministères dédiés créer ay euh, ay institutions yuy occupé ci affaire yooyu loolu Abdoulaye Wade moo ñëw ñu def ko 2000 bi ñu koy def ci politique publique yi ñu ngi commencer parce que même Abdoulaye Wade ah il n'était pas dans l'emploi de façon globale parce qu'il faut que ñu comprendre ñun parce que Abdoulaye Wade c'est les jeunes qui l'ont amené au pouvoir euh, bi mu ñëwee il a autonomisé le ministère de la jeunesse donc première réponse institutionnelle cest dire que ñu am ministre de la jeunesse autonome ministre de la jeunesse point boo xam ne nii jox ko contenu Abdoulaye Wade révolution bi mu indi ci question secteur boobu prise en charge euh, c'est la promotion socio-économique des jeunes mais boobu dañu def dañu def dañu def boo xoolee histoire Sénégal à partir de 2000 dañu def promotion socio-économique des jeunes mu euh, mu indi naka la ñuy defee ba jóge ci activité socio-éducative yi concentré wu ci li nga xam ne ni mooy activité productive donc ci lañ teg fonds de promotion de la jeunesse ci lañ teg agence nationale pour l'emploi des jeunes dans un premier temps ñu nekk les deux premiers instruments de promotion des jeunes ensuite on a laissé les instruments classiques Et au niveau de la politique de l'emploi de façon globale ñu ngi amoon la direction de l'emploi mu nekk une direction nationale am ay instruments yu fa nekkoon yoo xam ne nii mu ngi mel ni convention nationale état employeur pour l'emploi nga xam ne nii mooy principal instrument bi nga xam ne nii moom moo fi nekkoon mu amoon à peu ay trois quatre milliards par an nga xam ne dañ doon permettre xale yi jàng ba pare fond convention bi di leen fayal ñu am stage muy jël 60 pour cent ci seen fay ñu permettre xale yooyu ñu insérer leen ñu dugal leen donc loolu moo fi nekkoon comme instrument. Euh, bi ñu ñëwee en 2000 ñu ñu yokk au delà convention bi parce que amul woon politique bu articulée boo xam ne nii vraiment dañ ko tabaxoon xam fi ñu jëm euh, maîtriser paramètre problème bi yëpp donc bi ñu ñëwee dañu tabaxal lu ñuy wax politique publique de jeunesse ñu tàmbali ko def la lettre de politique sectorielle du du du secteur jeunesse. indi le plan national d'action pour l'emploi des jeunes ak instrument yooyu nga xam ne nii dafa waroon am politique active d'emploi mais particularité bi nga xam ne nii politique Abdoulaye Wade amoon na ko moo doon politique d'emploi global ay tout était ciblé sur l'emploi des jeunes donc tous les instruments étaient dédiés jeunes muy ANEJ muy FNPJ même la convention nationale pour pour l'emploi dañ ko def convention nationale état employeur pour l'emploi des jeunes donc entre Abdoulaye Wade bi muy ñëw instruments yi ñu teg yëpp 2000 ba 2007 dañ ko teg mu jëmale ci ci ci ci xëyu ndaw ñi parce que boobu tamit xëyu ndaw ñu problème la woon il faut ñu développer esprit d'entreprise et tout ça donc am na lu bari luñ ci def euh, parce que boo xoolee fi Sénégal jóge 2000 boo jëlee budget ministère de la jeunesse et des sports li nga xam ne nii moom moo jëmoon ci activité promotion socio-économique des jeunes alal ci Sénégal doon def weesul woon trente millions fanweeri millions ku jël archives yi nga xool budget Sénégal euh, quatre-vingt-dix-neuf deux mille euh, budget bi passé wul woon trente millions donc Abdoulaye Wade bi mu ñëwee révolution la woon déjà ñu jóge deux millions trente millions dem ci budget deux milliards par an pendant cinq ans parce que Abdoulaye bi muy ñëw dafa defoon annonce ne damay def dix milliards boobu dix milliards alal ju bari la woon damay def dix milliards pour la promotion socio-économique des jeunes CFNPJ yi ñu doon def deux milliards année at bu nekk ñu def deux milliards sur cinq ans loolu moo doon dix milliards yi loolu mooy premier effort yi nga xam ne nii def nañ ko ñu boole ko ak ay xeet yoo xam ne nii dañ doon jàppale xale yi mu mel ni fonds national d'insertion des jeunes nga xam ne nii instruments mais bi ñu demee ñu ne ak développement esprit donc ci loolu au fur mesure ñuy dem ci lañ def état généraux yi 2006 ñu évaluer après cinq ans évaluer ni xale yi balaa ñu leen jox xaalis c'est bien ñu jox leen xaalis mais balaa ñu leen jox xaalis dañ leen war a tàggat parce que xaalis bi ñu leen joxoon presque dix milliards yu bari dafa naax saay parce que xale yi d'abord un ci lañ évaluer xam ne xale yi foog nga former leen euh, pour jox leen xaalis foog nga outiller leen foog ñu am projet foog nga encadrer leen foog nga accompagner leen foog nga indi dispositif. foog mu am suivi daal post financement. loolu mooy évaluation bi ñu njëkk a def 2006 ci évaluation bi nga xam ne xaalis bu bari naax saay na ci loolu lañ évaluer ñun ñi ci lañ ñu ci lañ ñëw ci secteur bi ñun ñoo def évaluation boobu après ci lañ dugg nag deuxième phase ci mise en œuvre politique publique d'emploi des jeunes. Euh, ci la ñu créé plan national d'action pour l'emploi des jeunes mu 2006 ba 2017 nga xam ne fukki at yooyu lépp lu fi nekk di dox ci biir Sénégal ñu ne nañu construire politique boo xam ne nii nguur gi nekk fi ak nguur gi lu nekk fi day dox te loolu la fi nekk te may fàttali ni politique publique d'emploi ak emploi des jeunes du affaire wu régime du affaire wu président du affaire wu état la c'est vrai président bu ñëw da ngay yor vision mm-hmm. mais il faut que ñu fexe de telle sorte que mu nekk loo xam ne nii président vision mais mu nekk politique d'état donc ci lañ continuer continuer donc ci lañ kon ne def def génne programme yu bari daal ne au delà ñuy jox xale yi xaalis di leen financé il faut ñu tabax une politique globale ñu ne politique boobu ñu ne nag politique publique d'emploi du affaire jeune kese parce que boobu politique bi quand même si certains aspects commencé na jox ay résultat mais am na ay mag yu amoon trente cinq ans quarante te amuñu moyen financement boobu femmes yi tamit ñu ngi fi nekk am ay besoins femmes yi besoin ñu am appui ci la ñu ñëw am politique plus ñu ne il faut ñu am politique politique globale d'emploi nga xool Sénégal bu ñuy wax loolu. boobu fekk pare nañ li nga xam ne nii teg instrument yi nga xam ne nii mooy politique publique d'emploi des jeunes donc ñu war a dem niveau bu gën a macro ci lañ rendre compte ni euh, Sénégal 1967 ba léegi amul politique nationale de l'emploi mooy am document de politique nationale d'emploi comme li ñu def ci politique ci PSE e bi comme li ñu defoon ci plan national d'action pour l'emploi des jeunes alors ñu commencé liggéey ci loolu liggéey sur un nouveau document de politique publique de politique nationale d'emploi mooy e PNE NPNE NPNE nouveau document de politique nouvelle politique de l'emploi politique nationale de l'emploi du Sénégal 2011 2016 donc loolu ñu ngi ko liggéey ñu ngi ko terminé ak ministre Ablaye Matar Diop bi mu nekkee ministre de l'emploi Euh, parce que nekk na ministre de l' emploi sous Abdou Diouf ministre d' état ministre de l' emploi ci moom lañ liggéeyee le nouveau le lu le document de nouvelle de politique euh, d' emploi euh, nga xam ne nii moom moo war a structurer lépp li nga xam ne ni ci réew mi moom la ñu war a def def ko comme ligne d'action ci at yi ñi ñëw donc ci lañ ci la Sénégal Sénégal 2006 2007 ci la am plan national d' action pour l' emploi des jeunes 2011 ci la am politique d'emploi politique nationale d'emploi euh, liñ ci def nag loolu loolu loolu bari na parce que loolu c'était ay étapes yoo xam ne nii dañ ko waroon def mu am au moins une vision stratégique ñu planifier programme voilà et puis yan xeetu solution la ñuy joxe xeetu solution yooyu moo indi après à partir de 2007 2008 ñu def li nga xam ne nii mooy Euh, école atelier Saint-Louis ak soutien wu coopération espagnole ñu jàppale ñu financer benn programme buy former xale yi euh, ndar 320 xale jàngal leen ay métiers ci maçonnerie ci batiment ci électricité ci développement local ci agriculture ci métiers yu bari ñu jàngal xale yi mu ngi tàggat leen ba pare jox leen pécule ñu mën a liggéey loolu moo indi plan REVA retour vers l'agriculture loolu moo indi ay programmes yu mel ni jeune dans les fermes agricoles Euh, loolu moo indi euh, ay programme yu mel ni centre d'incubation yi nga xam ne ni ay centre de formation de dans les métiers ak centre de production yoo xam ne ni ndaw ñi ci trente cinq départements yi ñu ubbi centre yoo xam ne nii dañ fay équiper matériel war nañ fa mën ñëw jàngee jànge ci biir centre yi wala bu ñu amee seen métier war nañ mën a dem outil commande muy menuisier muy loolu ñëw di liggéey foofu donc ci boobu lañ commencé xalaat programme yooyu yëpp programme politique active d'emploi yooyu euh, ci politique nationale d'emploi tamit ñu génnee ci ay ay ay ay renforcer convention nationale état employeur euh, daal di amoon ay projet créer agence nationale pour l'emploi la grande agence nationale pour l'emploi ci lañ théoriser ñu fusionner structures yi euh, ay ANAMA ay ANEJ FNPJ pour que mu nekk benn bànqaas parce que loolu biñ koy def biñ koy def te loolu yaakaar naa ne jàpp naa ne bu léegi réforme boobu yeggul mhm. président Macky Sall am na lu mu ci def d'abord rationaliser le dispositif mais dañ ne woon nañ rationaliser le dispositif des jeunes def ANEJ FNPJ ANAMA loolu yëpp ñu def ko benn kuréel spécifique à la politique publique d' emploi des jeunes mais il faut ñu am politique nationale d' emploi bi il faut mu am instrument instrument bi mooy la grande agence nationale pour l'emploi nga xam ne nii moom mooy yore politique nationale bi ñu am ay antenne dans les quarante cinq départements pour que Sénégal réew mu département bu nekk lépp ñu mu am une coordination et et une bonne coordination loolu nag dafa nekk loo xam ne nii euh, Sénégal liggéey nañ ko maintenant am na résultat amul résultat mooy wax ni waaw foofu laa bëggoon a ñëw parce que li ngeen euh, euh, euh, def ci ay programme ak i projet bëri na mais lan moo nekkoon résultat bi finalité bi waaw xam nga foofu avant ñu ñëw ci résultat bi nit ñi dañuy fàtte ni Sénégal comme ni ma ko waxee sànq 2000 amul woon dara li may li may lim nii yëpp li ma leen limal sànq bu lépp loo xam ne nii dañu jël fukki at liggéey ko xalaat ko commencé bu début bi dañ doon làmbatu wax dëgg yàlla entre 2001 2000. 2002 ñu njëkkee joxe financement bi ba mu naax saay moom. 2001 2002 2003 dañu doon làmbatu Sénégal dañu doon làmbatu après 2004 ñu commencé gis yoon bi 2005 ñu def évaluation nationale 2006 résultat évaluation yi. moo ñu indi ñu am politique articulée boo xam ne nii Sénégal politique bu leer. politique lu leer boobu ñu am nag moom moo permettre après ci résultat. Guinée Bissau Mauritanie Mali Burkina Faso ba ci Côte d'Ivoire ñoom ñëpp ñu ñëw Sénégal inspiré wu ci modèle de politique bi nga xam ne nii teg nañ ko ñoom à part de 2006 ñoom 2007 2008 lañ teg commencé teg seeni kuréel mais bi ñuy teg seen kuréel ci ñun lañ ñëw inspiré wu. 2006 fekk def nañ suñu évaluation donc ñoom erreur yi ñu def ñëpp parce que Sénégal mooy cobaye parce que Sénégal moo njëkk a def politique publique d'emploi Sénégal donc Sénégal mooy cobaye bi donc ñoom bi ñuy ñëw fii fekk na ñun euh, matal nañ matal nañ matal nañ ba def ay erreur ba xam erreur yi ñu def ak ñoom naka la ñuy moytu pour def Sénégal moo inspiré foofu yëpp maintenant résultat je pense que résultat yi mooy suñu réew am na politique publique d'emploi jumtukaay yi teg nañ ko programme yi xalaat nañ ko programme yi teg nañ ko maintenant euh, commencé na jox ay résultats mooy développé nañ esprit d'entreprise dans le milieu des jeunes esprit tey boo gisee man je suis content aujourd'hui bu ma gisee xale yi au lieu ñuy ut liggéey di teg salon de coiffure di teg salon yenn affaires yi di nekk dans l'entrepreneuriat di créer ay restaurants di créer ay trucs loolu amu fi woon fukki at ci gannaaw donc loolu je pense que l'esprit d'entreprise bi ñu développé en milieu jeune loolu c'est un résultat qui est important beneen bi mooy am na luñ programme bu ñu naan def programme d' animation économique territoriale nga xam ne nii dañoo amoon benn bis buy def les routes de l' emploi nga xam ne nii bis boobu dañ ko équipé woon mu mel ni bureau bis boobu daawul toog senegal daawul toog Dakar da daan wër di def Sénégal di def région yi à l' époque onze région après ñu dem douze régions da daan def région yëpp bu mu daan def région yi bu ñëwee ak programme bi si fukki at yi. formé na lu ëpp plus de cent mille jeunes je pense que à l'époque man bi may quitté on était dans les statistiques pratiquement cent trente mille jeunes yoo xam ne nii formé nañ leen ci développement esprit d'entreprise formé nañ leen ci tàggat leen naka la ñuy euh, monter projet formé nañ leen ñenn ñi encadre leen toggal leen projet defal leen projet ñenn ñi ñu accompagner leen ci ay financement pour des créations d'emplois effectifs de à peu près à l'époque bi may jóge foofu pratiquement dix-neuf mille emplois créés loolu ay résultats la maintenant c'est de bon résultats parce que boo jëlee ñu ne teg nañ institution yi teg nañ ci bi génne nañ yoon bi teg nañ plan national d'action pour l'emploi des jeunes mooy programme boo plan xam ne nii ci fukki at yi mooy wax lépp lu ñu war a def euh, loolu ay résultats yu mag la après nga boole ci former lu ëpp cent mille jeunes euh, utal liggéey lu mat presque euh, dix-huit mille jeunes je pense que loolu c'était de bons résultats maintenant loolu par rapport ak problème bi nu mu toll maintenant résultat bi par comparé au problème. waaw day ndaw. dafay ndaw parce que Sénégal dafa nekk de réew moo xam ne nii population bi dafa jeune moins de soixante euh, cinquante quatre pour cent de la population moins de seize ans la ñu am moins de seize ans cest dire que moitié population ah. maseeru ñu. ay ay jeunes lañ. ay ay non nekkaguñu sax jeune ay adolescents lañ. Mm-hmm. ay 16 ans lañ soo jëlee presque soixante douze soixante quatorze pour cent de la population. Mm-hmm. soixante quatorze ñu ngi am. moins de trente cinq donc ay jeunes la soixante quinze daanaka population donc Sénégal un quart ñoo nekk plus de trente cinq ans mm-hmm. mais 75 pour cent de la population moins de 35 ans la ñu te ñooñu ñu ngi nekk ci at ñooñu 75 pour cent de la population mu ngi nekk ci atum ut liggéey jàng ut formation encadrement donc problème bi foofu la nekk. loolu population tout donc il faut ñu trouver jumtukaay maintenant suñu réew am na jumtukaay yi gën a baax. en terme de réponse en terme de programme donc président Macky Sall bi muy ñëw au pouvoir moom fekk na jumtukaay yi d'abord ñu teg ko mais il a fait une deuxième évaluation xam nga nee naa def nañ évaluation 2006 mais moom def na deuxième évaluation évaluation bi mu def mooy euh, les assises sur l'emploi des jeunes euh, la commission nationale qui a réfléchi euh, ñëw jëlaat le plan national d'action pour l'emploi des jeunes ci objectif yi mu xool li ñu atteindre li ci des mu ñu réactualiser ci biir réactualisation boobu. kon am na continuité. non am na continuité xam nga wax bi moo fi nekk mais en réalité am na continuité parce que plan national d'action pour l'emploi des jeunes la ñu jël càmbar ko réactualiser ko li ci baax ñu jël ko objectif yi ñu war a téye ñu téye ko. ba pare président ñëw yokku ci yokku ci nag vision ndax président li mu ñëw approprié wu d'abord un recommandation bu baax bi mu fi fekk muy recommandation rationalisation mooy ñu dajale ANEJ FNPJ ANAMA OFEJBAN ñu dajale leen mu nekk benn kuréel boobu recommandation boobu président bi mu ñëwee daf ko appliqué parce que loolu lu ñu fi bàyyi woon la yaa ngi mm-hmm. donc daf ko appliqué loolu moo indi ñu créé ANPEJ mm. ANPEJ fi di nekk fusion ANAMA FNPJ ak ANEJ d'abord benn deuxième bi recommandation mooy dañu ne woon nañu densifier et, et, réussir la question de l'allocation des ressources mooy mooy comme li ma la wax sànq xam nañu yoon bi solution yi am nañ ko solution yu baax am na fi suñu bëggee d'abord il faut ñu rationaliser le dispositif deuxièmement il faut ñu densifier Euh, l'allocation de ressources ensuite programme yi ñu tàllal leen élargir leen jox leen euh, ay programme loolu président moom la approprié maintenant moom yokku ci sensibilité ak euh, attachement bi mu jox jeunes parce que ci programme am bi muy ñëw jeunes yi dañ nekk au cœur de son programme donc ci la ñëw moom rationalisation bi que mu quand même comme li ma lay wax Sénégal deux mille trente millions la woon. Mm-hmm. ñu commencé deux milliards di dégg boobu bi ñuy wax dix milliards nit ñi dañ doon wax dañuy xeex. président indi ay programme d'envergure euh, de politique publique active d'emploi comme ay Prodac Prodac nga xam ne nii euh, c'est une solution pour l'emploi parce que c'est un programme qui va quand même créé à peu près cinquante soixante mille emplois en fonction c'est un programme de création massive d'emplois ñu jël ko def ci pratiquement plus de soixante milliards loolu quand même c'est la première fois ñu am Sénégal un programme d'insertion un programme d'emploi à ce niveau de financement ay ñuy wax ay quarante millions quarante milliards cinquante milliards soixante un programme pour fixer les populations dans le milieu rural pour intensifier suñu moderniser suñu agriculture intensifier la production xam la ba pare créer ay collectivités jeunes jeunes yi avec créer toute une activité d'infrastructure parce que problème programme boobu bu doxee dafa bari loo xam ne nii mën nañu donc le PRODAC est une révolution et et et une avancée majeure ci li nga xam ne nii mooy politique publique d'emploi et d'emploi des jeunes ensuite euh, mu ñëw indi après le Prodac évaluation bi ñu gis ni financement bi c'est un problème au-delà des instruments yi ñu créé de comme le FONGIP qui est un instrument de d'appui au PME financement garantie ci emploi formel bi mu créer un nouveau dispositif la délégation à l'emploi à l'entrepreneuriat la délégation à l'entrepreneuriat c'est un instrument qui permet évidemment euh, de financer sur ressources propres parce que le le le, le la DER est alimentée bi koy alimenté état Sénégal la budget Sénégal la comme comme mu réew mi la alors DER lu muy at lu mu nu mu nu mu nu muy nu ñu koy alimenté jox ko trente milliards at mu nekk trente milliards pour financement jeunes yi ak ndaw ñi loolu tamit révolution la mhm. loolu jéego la bu mag boo xam ne nii ci Sénégal wax dëgg yàlla bu ñu dëgg rek taxee di wax waaw musu fee am parce que nee la trente millions lañ jógee commencé deux milliards par année deux mille un deux mille deux ba deux mille cinq deux milliards la doon def bu ñuy def trente milliards par année ci financement bi loolu xol bu yaatu la générosité la euh, euh, ak bëgg dimbali ndaw ñi tey xam ni problème bi ni mu toll tolluwaayu problème bi pour ñu mun ko régler il faut ñu amplifier ressources yi nga xam ne nii ñu ngi koy def ci état mais est-ce que tamit euh, problème bi melu ni lu leen dépassé ndax on se rappelle président bi muy tëj campagne am 2019 17 mars ci stade Alassane Djigo diggéen a un million d'emplois ci cinq ans Euh, loolu ba tey nit ñi vraiment tegaguñ ci bët donc est-ce que làmbatu bi nga doon wax tamit au début nekkul moom la ñu nekkee ba ba léegi. même bi muy doog avant muy accéder au pouvoir tamit diggé woon ay emploi mais loolu nit ñi te ci teg teg bët te wax nga ne jumtukaay yi teg ngeen ko yéen seen ay euh, résultats da ngeen ciy boole jumtukaay yi loolu mun naa la ko nangul mooy politique amu fi woon stratégie amu fi woon ngeen teg ko donc yéen lu ngeen ci teg mun nañ ne bénéfice la mais ñoom dañ fay fekk loolu nga ne am na continuité est-ce que tey tamit làmbatu boobu du ci lañ nekk ba tey. non Sénégal ci affaire emploi insertion formation professionnelle Sénégal nekkul ci làmbatu jóge na ci làmbatu depuis ay 2004. kon ñu ngi def ay résultats depuis 2005 2006 làmbatu bi li may wax làmbatu bi 2000 2000 la woon ba 2004 mais depuis 2005 gis nañu yoon bi. ñun ñoo nekk ci yoon bi ci kaw. non am na ay résultats yu mag te xam nga euh, sànq fi ma yemoon ci instruments yi ci financement bi boo ko ne ci financement bi. am na beneen aspect bu am solo mooy formation professionnelle ak insertion fexe ba jeunes yi am formation boobu ci la ñu réformer CFCE tey li ñuy def ci formation créer fonds de fonds de financement de la formation professionnelle trois fpt def ci alal bu bari jël euh, euh, euh, créer ay lycée d'enseignement technique professionnel Euh, xaalis alal bi ñuy def lu ëpp trente milliards aussi dans la formation professionnelle par an loolu dafa am lu muy leggee ak si éducation bi maintenant loolu yëpp boo ko boolee pour tontu si sa question mooy day régler problème yu bari mais est-ce que ba léegi par rapport ak besoin bi fi mu toll parce que wax naa lu soixante quinze pour cent euh, euh, de la population moins de trente cinq ans est-ce que daj na ñëpp loolu mooy équation mais est-ce que réponse yi baax na institutionnellement oui Sénégal moo am le meilleur dispositif loolu moom wax dëgg yàlla dispositif ñi fi yor dispositif Afrique de l'Ouest yëpp fii lañ est-ce que programme yi pertinent la hmm. ay 3 FPT ay euh, les lycées d'enseignement technique le PRODAC euh, la délégation à l'entrepreneuriat rapide le FONGIP le PAVI euh, programme yi fi nekk c'est des programmes plus que pertinents maintenant président buy wax damay créer un million d'emplois par an. en cinq ans en cinq ans. c'est pas une ambition démesurée c'est une ambition bu président am en fonction de défi bi mooy li ma la wax parce que ñun tey soo bëggee régler problème bi on a presque trois cent mille jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année trois cent mille jeunes qui sont en âge de travailler mais aujourd'hui l'objectif d'un président ambitieux et réaliste ambitieux mooy fexe objectif président mooy chaque année ñu créer deux cent mille emplois loolu mooy suñu objectif président ci politique bi mu teg loolu la nekk di def tey tey DER at bii deux mille vingt et un jox nañ ko soixante quatorze milliards avec le PAVI mu war si pour que mu produire en financer en termes de création d' au moins cent loolu c'est réalité parce que président ni mu ko waxee noonu noonu la ko booleeg moyens yi parce que tey DER si pavi bi 74 milliards war nañu mën a créer seen objectif si 2021 2022 c'est 100 000 emplois tey aujourd'hui nu ñu amplifier le Prodac ba teg ko ci yoon ba domaine agricole communautaire yi war commandeur di waaj tàmbali bu ñu tàmbalee euh, en termes de création d'emplois c'est des centaines de milliers d'emplois may wax ni Sénégal bu président waxee loolu gis nga emploi mooy secteur boo xam ne nii problème bu mag la mais gis nga senegal ñii ut liggéey rek ngay gis gis nga heure boo jàppalee nit ñi ba ñu ut liggéey ñooñu dootoo leen gis yaa ngi dégg tey boo ne woon tàllaleel seen loxo ñi am liggéey ñi tàllal loxo après ñi am liggéey ñëpp dootu leen gis te dootuñ ñooñu du ñu wax parce que ils sont dans les circuits productifs ñu ngi def seen liggéey jàll nañ. mais état quand même fu mu def xaalisam na wax on évalue xam nga tey bu fekkee ne trois cent mille emplois trois cent mille jeunes marché de l'emploi tey suñu capacité xam nga ma jox la benn exemple rek ñuy wax emploi yi gisuñu ko. suñu économie actuellement chaque année quatre vingt cinq mille nouveaux emplois lay créer chaque année en fait chaque année am na quatre vingt cinq mille jeunes yu bees yu am xëy parce que am na cinquante cinq mille yoo xam ne nii ci emploi formel mooy mooy mooy naturellement ñiy dem retraite mooy les créations nouvelle mooy entreprise yi nga xam ne nii ubbi nañ bees recruter ay emploi salarié entreprise yi nga xam ne nii euh, am na ñu dem retraite ñu remplacer leen yaa ngi dégg parce que loolu loolu rek ci loolu ak li nga xam ne suñu économie capacité bu bees ñooñu cinquante cinq mille lañ ñuy dem retraite ak affaire yooyu ñu remplacer leen ak création nouvelle loolu mooy suñu capacité création chaque année. économie économie chaque année effort état c' est état mu ci incitation fiscale et tout mais y' a quatre mille emplois qui se créent que l' économie normale génère loolu économie c' est état day encadre économie loolu da koy jël en charge déjà ci statistique yi. par année donc quatre vingt cinq mille fois fois fois cinq c'est presque quatre cent mille emplois ça c'est les efforts de l'État dans l'économie et l'écosystème naturel ensuite li ci des li koy mottali mooy li président ne Euh, les politiques actives d'emploi mooy DER mooy Prodac mooy li ma la te DER nee naa la normalement objectif yi ñu leen jox ci deux ans yi c'est presque cent mille emplois en termes de financement donc statistiques yooyu atteindre ko c'est pas un problème Euh, noonu la ñuy jàppee mbir mi nga xam ne lii si des nag approche de l'état la économie bi dina créer cent vingt cinq quatre vingt cinq mille emplois mu des cent quinze mille yoo xam ne nii les programmes de politique active d'emploi ñoo ko war a créer lu mel ni programme réseau de boulangerie lu mel ni euh, les centres d'incubation cinq d'incubation lu mel ni les centres de formation professionnelle euh, lu mel ni les les les programme agricoles ñoom ñoo war a compléter loolu loolu nag acteurs yi mooy fexe ambition bi président action yi nga xam ne nii moom la ñuy teg tous les jours mu nekk action yu permettre ñu ñu ñu ñu atteindre ñu atteindre ñu atteindre résultat yooyu mais ay résultat am na euh, mais même boo créé deux cent mille emplois dama ne la cent mille jeunes ñooy toujours voilà donc donc il faut ñu comprendre euh, problème yi noonu mais parfois pas dans le débat euh, parce que ñu bari même politique yi ah ils comprennent pas trop la question de l'emploi la, la question de l'emploi c'est une c'est pas une question politique c'est une question technique euh, c'est des solutions techniques c'est des solutions structurelles euh, politique bu la ne mën na saafara problème emploi bi ci benn fan wala ñaari fan day kàcc waxul dëgg parce que li ma la limal fii léegi wax naa la articulation politique au niveau institutionnel ni ñu ko tegee sur les vingt dernières années au niveau de l'État sur d'abord concevoir une politique publique de jeunesse d'abord, ensuite de, de, jeunesse de façon globale avec la lettre de politique sectorielle secteur jeunesse, ensuite euh, sectorielle promotion socio-économique avec le plan national d'action pour l'emploi des jeunes ba nga xam ne nii ñun évaluer ko ba ñëw après construire le document de politique nationale d'emploi mu intégrer lépp et la dimension emploi des jeunes ak yeneen dimension yi le financement tout ça l'encadrement les femmes les adultes la formation professionnelle la transformation de la CFCE pour financer la formation professionnelle loolu yëpp ça a pris des années une dizaine d'années ba tey ñu ñëw ci application président Macky Sall ñëw nekk chance boo xam ne ni en termes de volume de financement aujourd'hui pratiquement il met deux cent milliards dans en termes de de financement euh, d'appui sur les programmes de politique active d'emploi et de financement loolu nag suñ ko continuer ñëpp yokk seen doole entreprise di ubbeeku ah je pense que problème bi dina saafarawu donc problème li koy saafarawu ñu encourager jeunes yi ñu ut liggéey ñu encouragé jeunes yi ñu ut formation ñu encouragé jeunes yi ñu jàng parce que la base di régler problème bi parce que problème il faut nga régler ko en amont il faut nga fexe xale yi di inscrire teel a inscrire il faut que nga fexe xale yi def cycle primaire xale yi def collège et que collège xale yi di bañ a di bàyyi jàng euh, école euh, école primaire xale yi bu ñu demee collège bu seen xel nanguwul jàng kii bi ñu ñu du collège yóbbu leen si collège yi ñu ut métier def leen jàngal leen parce que loolu mooy permettre que à un niveau adulte xale yi bu amee formation am métier dina am capacité pour pour euh, pour pour pour pour pour pour jëriñ boppam pour liggéey pour pour pour gérer boppam. donc problème bi noonu la demee noonu la tëddee ñu comprendre loolu mu laaj consensus ci acteurs yëpp pour ñu ànd pour ñu liggéey loolu pour mën a saafaraal. Euh, jafe-jafe boobu nga xam ne nii jafe la bu jafe-jafe bu réel ci biir réew mi. te àdduna bi yëpp aussi ñu ngi koy jànkonteel wàllum xëy la ñuy waxtaanee ni ñu ko géré woon ci jamonoy euh, président Abdoulaye Wade muy régime bi fi jóge ak bi fi nekk tey Abdou Khafor Touré mi jiite woon ANEJ la ñu ciy dalal tey mu nekk directeur général CGIS SA mais euh, ni nga ko waxee sànq milliards yi ci président Abdoulaye Wade def bëri na daanaka moo indi milliards ci wàllum jeunesse ak emploi président milliards yu bëri mais sénégalais lambda yi li ñuy wax laa lay jottali xam naa ne sax dégg nga ko bu ñu déggee milliards yooyu dañ naan dañ koy politiquer wala dañ koy détourner wala seeni militan lañ koy jox loolu itam mbir la moo xam ni xëy na bu amoon transparence bi wax ci gestion wu yooyu les projet ak programme euh, yaakaaroon ne euh, doon nañu bañ a dégg yu mel noonu waaw xamoo woon ay at liggéeyatuma ci secteur boobu ñu am naa ci ay xarit Euh, am na ñu bari bu ñu yoraan ñu yoraan secteur bi dañ naan ñëw ci man di ñu ci bari di jël sama xalaat. pour ñu dox ci loolu mais li ma ci mën a wax man géré naa secteur bi juróom-ñaari at mais xale yi wax ni seen militant la ñuy financé loolu dañuy décourager nit ñi. du réalité man bi may jiite ANEJ ñu nekk presque juróom fukk ñii doon politique en tout cas man na ma daan doxalee ñi daan politique ci biir structure bi matuñu woon ñeent. donc ñiy liggéey ci biir structure yi c'est des gens apolitiques tey man wóor na ma parce que DER xam naa ci ñu bari am na ñoo xam ne nii ñun ñoo leen recommander si si si si sélection si avis sélection yu lañ leen recruter c'est de grandes experts ay xale lañ yu nekkoon Amérique yu nekkoon Angleterre yu nekkoon France ñu recruter leen ñoo leen fii ñuy liggéey ci développement esprit d'entreprise ñooñu amuñu carte parti déjà pour ñu recruter leen et puis ñoom la ñuy yóddi si terrain bi xamee wuñu militant ak kii xam moo demee Kolda mu financé mille personnes mënoo xam kii parti bi ak la bokk loolu dañ koy wax pour décourager ndaw ñi may wax ndaw ñi ñi leen di wax noonu instrument yi ñu ko jiite mun nañ nekk politique mais ñañ jiite ñuy doxal affaire bi ñooñu politique wuñu te mënuñu leen sax ne leen dañuy joxe sur la base de carte donc bu ñu découragé benn ndaw ne la amul njëriñ wala bu dem wala seen militants yi lañ koy jox bu ñu découragé benn ndaw ndaw bu gëm boppam affaire bi politique publique la xaalisu état la ñëpp ci bokk ñëpp a ci yem. na ndaw ñi jóg dem fëgg ci buntu instrument yooyu parce que ñoom ñoo ko moom. te dañ leen war a offrir service donc loolu. loo ah, ñu bëri li nga wax nii euh, dëgg la ndax ñu bëri dañu naan ah jarul may dem ndax su ma demee sax du ci jot. waaw jarul may dem boobu nag gis nga gis nga man man bi may pare jàng. dañ ma doon jàngal école suñu école dañ doon jàngal nañu la yéen a ngi pare yéen ngi am seen diplôme mais la recherche d'emploi est un est est un à temps cest dire que bu ngeen xëyee da leen ut seen utum liggéey da leen ko def huit heures ba dix huit heures ngeen dem tëdd nelaw parce que utum liggéey xëy la da nga koy def xëy damay wax ni xale bu bëgg financement wala doon amul découragé da ngay toog ñëw ñëw ñu accueillir la oriente la nga wax sa projet ñëw taxaw état bi teg na jumtukaay dañ projet bi la ko war a defal par force ku la laaj cent franc truand la agent bu la laaj demal nga laaj chef am nga boole ko parce que projet yi c'est gratuit yaa ngi dégg service boobu dafa am il faut nit ñi il faut ndaw ñi léeg-léeg nag am na ay njublaŋ yu nekk fii ñu ñëw ñu dawloo leen ba ñu sonn laaj leen vingt mille pour defaral leen projet mais loolu yëpp truand la nga dem ci chef boobu les projet sont gratuits. soo sa financement boo ko déposé ba ñu jox la sa numéro sa reçu bul tàyyi bul sonn est-ce na na nga laajte fu comité de crédit yi toll comité de crédit comité d'investissement yi financé projet yi kuréel la. donc loolu ay wax la pour décourager ñenn yenn xale yi de leen dem fonds de financement de la formation professionnelle yéen ko moom day leen déposer de bu leen toog seen kër xale yi bu ñu toog xam nga fii jeunes yi nag dañu am difficulté tàmmuñu ñu am da ngay déposer rek daal di toog di xaar ñu woo xaar ñu woo kenn du la woo kenn du la toog di xaar ñu woo euh, kenn du la woo. alors donc ñoom il faut ñuy jóg di daw di dem di gérer di di di di di ut di maintenant c'est vrai à la décharge je dois dire que euh, voilà bon parfois nag aussi Hmm, xale yi politique tamit am nañ benn mérite nit ñi dañ leen di xam ah, ñoom ñoom nag li may wax ni ñoom ñoo gën a xam ñoom ñooy ñëw pression gars yi pression directeur moo tax léeg-léeg nag ñuy am ci financement yi te te te ñoom ñooy gën a xam jeunes yi aussi yoon bi xam la mais c'est pas c'est pas les choses sont très transparentes liste yi directeur yi du wax dëgg yàlla li ñuy wax noonu amul amul man man mënu ma ko seet néew ma nag dinañ financé ay politique ah. Hmm. waaw loolu ah, loolu ah, politique itam ci réew mi leen di financer euh, mais ni ñu ciy toppee la ni ñu ciy dawee mais je veux dire loolu bu benn ndaw am blocage bu mel noonu. Hmm. d'accord léegi Sénégal itam euh, ginnaaw fonction publique ak recrutement yi ñu waxoon yépp euh, gis nañu ni option bi ñu jël tey auto entrepreneuriat bokk na ci mooy li ñu doon wax léegi financement yi ndaw ñu ubbi seen ay entreprise et tout jéem a doxal loolu jàpp nga ne mooy solution bi tey. ndax gis nañu ni ci ni ci président di insister. mais solution entrepreneuriat mooy solution. gis nga gis nga réew réew réew boo dem ci àdduna réew boo dem ci àdduna Euh, ñu ko développé du salarié yi euh, ndaw ñi du ñu ut euh, du ñu ut ndaw ñi les plus riches dans les pays ñu ñu def modèle mais c'est les hommes d'affaires parce que alal liggéey may kii mayew ko emploi salarié ñi am alal xam nga Sénégal nag dafa dafa yàqu woon ci ay jamono parce que fonctionnaire millionnaire yeeg fonctionnaire milliardaire yi mais fonctionnaire millionnaire fonctionnaire milliardaire sàcc nga amul amul nit mënul nekk am ba demee France fonctionnaire yee gën a pauvre Sénégal da ngay ñëw fonctionnaire yee gën a liis mais li ñu yor lewul c'est clair c'est clair donc les gens c'est pas c'est pas des rythmes de vie qui sont basés sur des choses structurelles yu dëgër yu solides donc ndaw ñi il faut ñu développer esprit d'entreprise ñu jël modèle métier soo demee France métier Europe métier ñi am métier moo gën a euh, mën a fay ki nga xam ne nii liggéey bureau lay liggéey tey boo demee France euh, plombier bi moo plombier moo ëpp salaire fonctionnaire prône bi moo ëpp salaire fonctionnaire classique fu benn fonctionnaire classique di ko démarrer cent euros le plombier démarre à deux mille euros donc loolu il faut que aussi ñun ñu gën a valoriser métier surtout foofu laa doon bëgg a ñëw ndax euh, président Ablaye Wade sax euh, wax na fi retour à la terre mooy plan REVA boobu euh, déggaat nañ fi Gawana président Macky Sall itam ñëw na teg Prodac ni nga ko waxee sànq ay projet yoo xam ni daal ci mbay mi lay mais est-ce que jiital nañu préalable mooy. valoriser yu métier ndax tey baykat boo demee niñ koy gisee bitim réew ak baykat niñ koy gisee fii du benn da ngay gis bu ñu fixee kilo gerte gi baykat yi di yuuxu amuñu dara nangam ak nangam. est-ce que tamit foofu du échec. waroon nañu jiital valorisation bi non non non du échec. c'est tey loolu c'est le cas. gis nga man bi ñuy commencé di liggéey di def volontaire de l'agriculture damay joxe benn exemple. le programme Vagri. bi koy def volontaire de l'agriculture. boobu dañ daan jël ay xale yu nekk ndakaaroog yenn kii ñu lijjanti ay tool ci biir àll bi jël xale yi forme leen un mois jox leen ay tenue yóbbu leen utal leen tool jox leen jiw xale yi nekk ci pendant ñetti weer jiw chaque mois ñu fay leen quarante mille francs dañ leen di fay quarante mille francs volontaire de l'agriculture chaque mois ñu jox leen quarante mille francs pécule ba pare xale yi produire euh, boobu dañ doon jël xale yi pour tourner pour que ñenn ñi am vocation nekk ay entrepreneur rural dem ci dellu ci mbay mi parce que boo xale yi dañ leen doon def volontaire suñ jëlee cent volontaire cent vingt volontaire ci benn at dañuy bugg at bi bu jeexee au moins trente quarante ndaw après mu mujjee nekk ay agriculteur mais da gis ni xale yoo xam ne nii bu au début xale yi nekk ndakaaru dañaa waaye man ban programme volontaire de ah, l'agriculture fii jëlee fi étudiant yóbbu ko euh, wala jóge muy bay naan ma dañ may yóbbu Mboro ma bay wala dañ may yóbbu Fuuta naka laa koy def duma ko def mais gis nga am na xale yi ci continuer euh, deux ans trois ans quatre ans aujourd'hui c'est de grands producteurs loolu li koy li koy régler mooy xale yi ni ñuy def ba am di ci tedd euh, di jóg seen morom yi gis leen ni ñoom ñoo nekkoon fii yëmbal di màggandoo xale bi dugg na ci programme volontaire de l'agriculture am na ci métier agriculteur xam na agriculteur jàppale nañ ko utal nañ ko suuf am na ay jumtukaay xale bi dem na ba tey mu ngi produire mu ngi jaay mu ngi génne mu ngi ñëw marché caaro yi mu ngi jaay tey dem na xale boobu yorul woon dara tey moo yor otoom yor L200 di produit di ñëw di jaay mais bari na fi ñoo xam ne ñuy jëm te et loolu ñooñu ñuy dem bay nekk de gros producteurs dem ba ñeew ñu kenn ki nekk ci bureau donc ça c'est en train d'être valorisé aujourd'hui xoolal euh, menuisier yi ni ñu valoriser xoolal euh, euh, tailleur yi xoolal maçonnerie bi xoolal ah, boo xoolee da ngay gis ni ñu ngi valoriser léegi les métiers. mais état est ce que état tamit waru woon gën a impliqué wu ndax même tey commande publique bi ñu wax par exemple yi euh, artisan yi autant pour moi jafe-jafe la secteur artisanat bi tey wax dëgg yàlla dañoo may jafe-jafe ndax li ñu fiy defaree dañu ko fi naan tegg dem wuti leneen bitim réew te te kilifa yi ñoo ñoo jiite loolu malheureusement. non non non teggiwuñ ko xam nga euh, loolu débat bu yàgg la tey bu ñu xoolee artisanat.

de de euh, commande publique bi effectivement loi bi évolué nañ ko au moins pour que de la commune publique. respecté wuñ ko waaw respecté guñ ko mais faut ñu xeex pour que ñu yegg ci loolu. respecté wuñ ko wax dëgg yàlla. Ah. Euh, artisanat lay état dugal ci loxo mais mais mais mais dama bëgg ñu jàpp ni Euh, quand même affaire yi avancé na am na ay progrès non waxuma mu ngi dox mais am na ay progrès xam nga progrès yi mooy lan xoolal tey ñun nu ñuy solee yëre olof xam nga avant dañ doon wax wéy nit ñi dañuy jënd costume gars dañuy dem France voyager euh, payer pour jënd costume euh, il faut que ñu promouvoir euh, nit ñi solu traditionnel aujourd'hui moi je suis content je par exemple parfois toute la semaine ma gis samay collègues du lundi au vendredi tenue traditionnelle la ñuy sol loolu amu fi woon y a quinze ans donc c'est ça qui développe l'artisanat au niveau des tailleurs ñuy ñuy portable suñu tailleur yi di commandé di sol ay habits traditionnels di sol ay dàll yoo xam ne nii fii lañ ko defaree. dàllu ngaay dàllu ngaay ah ba ñu ba ñu génneewaat beneen marque dàllu yeneen dëkk tel tel tel tel ñu naan lii non chaussure de ngaay wala chaussure de Kaolack wala chaussure de xam nga euh, Tivaouane wala chaussure de Kédougou xam nga au moins moo am une industrie boo xam ne nii loolu il faut ñu def ko je pense que c'est c'est quelque chose qui en cours mais encore une fois c'est des des processus fàttalikul ba ñu tàmbalee émission bi ci le taux d' activité. ñoo xam ne nit ñi ñoo nekk dans le secteur informel suñu buggee régler la question. Euh, de l'emploi de façon durable il faut ñu jàppale artisans yi parce que l'essentiel de notre tissu économique ñoom ñoo ko porté l'essentiel de l'activité ñoom ñoo ko porté et ñooñu il faut ñu jàppale leen ñu organiser wu ñu structurer wu ba pare ñun aussi en terme de consommation ñu consommer les produit locaux jàppale leen pour que hôtel yi. Euh, production locale bi nekk fii comme euh, bureau yi administration bi li ñuy commandé ci meuble par ñu commandé ko ci ouvrier locaux yi je pense que loolu quand même commencé nañ ko ubbi am na ay jéego nañ ko gën a dëgëral pour que loolu mu gën a tax. jërëjëf Abdou Rapport Touré ñu ngi lay gërëm amoon mbégte lool dalal ci Demb ak Tay bi doon waxtaanee wàllum xëy évaluer un peu li fi régime bi fi jógee def ak bi fi nekk tey euh, li li mu jot a liggéey euh, kon daal ci tënk su Wade doon def président Macky Sall mi ngi koy continuer am lu mu ci yokk te mi ngi dox noonu nga waaw li ma li ma si waaw ci tënk daal Sénégal Abdoulaye Wade am na mérite parce que moom moo initié la politique publique de jeunesse. am luñ ju bari luñ ci def am lu baax luñ ci def mais li doon sooxe yëpp ñu bàyyi woon ko comme recommandation président Macky Sall rectifié na lépp en termes de rationalisation et en termes d'allocation des ressources multiplier nos ressources yi presque par dix aujourd'hui parce que aujourd'hui on est à plus de deux cents milliards injectés dans le secteur alors que en termes de financement des projets et programmes on était aux alentours de vingt milliards en 2012 donc ça c'est des efforts ah ci ci ci politique publique d'emploi il y a une consolidation des acquis et il y a quand même des avancées notar ak yeneen perspectives yoo xam ne ubbi nañ ko en termes d'amplification des projets et programmes et de de de de de montants injectés dans le ci biir circuit bi maintenant il faut ñu continuer loolu yoon bi président technique gën a yokk moyens yi si ci budget bi ñu yokk ñu ngi deux cent milliards déwén ñu mën a dem trois cent milliards wala quatre cent milliards parce que affaire boobu luñ ci def du parce que le défi de notre pays, c'est le défi de l'emploi, c'est le défi de l'insertion des jeunes, c'est le défi de la formation des jeunes, parce que loolu mooy permettre stabilité réew mi ëllëg parce que réew moo xam ne nii daanaka boo ko jëlee ñeent ñetti xaaj yi ndaw yu am moins de trente cinq ans lañ boo bëggee réew moomu naat ëllëg il faut nga toppatoo seen wér toppatoo seen jàng toppatoo seen xëy toppatoo seen xel ak toppatoo nu nu ñu nekkee ci xel mu dal parce que loolu mooy permettre réew mi jëm kanam. ñu xaar ba xam conseil national bi ñu annoncé lan mooy nekk finalité bi ak itam. Euh, waaw loolu dafay loolu baax xam nga conseil national bi du organe la boo xam ne nii ci sama gis organe la boo xam ne nii dafa war a nekk euh, euh, président di ko jiite ñu toog weer wu nekk wala ñaari weer wu nekk di xayma li ñu wax nii yëpp. Ah, mooy mooy jël mu am suivi di jël décision président lu mu wax nit ñi di ñëw wax foofu la ñuy def loolu dafa am solo trop te jàpp jàpp naa ni loolu. Euh, lu baax la luy ñëw complété tamit dispositif bi mu la wax la et en terme de suivi luy permettre Sénégal jëm kanam la. jërëjëf Touré <laughs> ñu ngi lay gërëm bu baax. ci disponibilité bi ak euh, waxtaan bu baax soxna Fatou Thiam euh, di am mbégte. Euh, toujours partage ak yow euh, plateau euh, waxtaan parce que je pense que c'est mbégte la ah sujet yu am solo la ci askan wi ak problème yi nga xam ne nii ñoom ñoo posé wu mais vraiment di la gërëm yow tamit di la sant bu baax di di la ñaanal yàlla may wér ah ak fekkee may aussi population yëpp ñuy fàttali ni mbas mi mu ngi fi ñu bàyyi ko xel gën a dal gën a waaw moytu ah, respecter mesure barrière rek ñoom seen ñoom ñoom. jërëjëf mu jiite woon fii ANEJ euh, si jamonoy président Abdoulaye Wade tey mu nekk euh, directeur CGIS euh, ñu doon waxtaanee wàllum xëy mi gërëm jaawo jàllo mi nekkoon ci jàppandal gi Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi dig daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaanee leneen ak keneen jërë ngeen jëf.